maa ngi ñëw teewal fii de commissaire spécial de Touba ñoo woon fekkee ci ndaje bii di commité local de développement ñu nekk jagleel ko màggalu Touba màggalu Touba nag nekk màggal goo xam ne bu am am dee la ci wàllu réew meek bitim réew euh, loolu moo waral police dina jël matukaay yëpp yi nga xam ni mu faral di jël comme at yi weesu yëpp lim bi nga xam ni indi na ko ci jumtukaay moom su yokkul du yées dinañ ko indiwaat te màggal gi tamit du benn du jour màggal gi gese c'est avant le màggal ak pendant la màggal et après le màggal si ay jumtukaay si wala wala si wàllu wàllu liggéey bi dinañ si def euh, ay opération de sécurisation de grande envergure yi nga xam ne dinañ si lëkkaloog suñu naataangoo gendarme yi pour fexe ba nit ñi am kaaraange si wàllu màggal gi lu jiitu loolu sax am na ay opération yoo xam ne mu ngi am si jamono bi ñu toll mi ngi xam ne jamono bu xaw a la ci askan wi ci wàllu kaaraange mais police ak gendarmerie sax je l'ai dit ñu ngi def seen képp lay kàttan ba nga xam ni ñu ngi occupé le terrain foofu rek ngeen baal ma di ñaaxaat askan wi ci maanaam ñu nekk nit ñoo xam ni ñu gisee lu xam ni lu dayu seen xel la rek ñuy jokkook service police yi ak service gendarmerie c'est ce qu'on appelle une participation citoyenne à la à la sécurité jamono ji am na ci ay gox yoo xam ne jàpp ne dafa xaw a doy waar loolu du Pikine fu naan mbaare ak fii di gaar ban jàpp ne moom moo waaw foofu tamit ay bërëb la yoo xam ni moom la ñuy wax ñun si suñu jargon des zones criminogènes yoo xam ne ay xale dañu fay nekk di def ay defi ñaawteef loolu tamit bu amee si ab dëkk il faut que nit ñi tax seetlu xool yan matukaay lañ siy jël ci biir matukaay yooyu noonu jëloon nañ fi ay opération yoo xam ne ñu ko doon def c'est des opérations de sécurisation yoo xam ne police dafay def ay descente descente musculée jàpp ay gune yóbbu si commissariat yi peut-être mu defee leen wala mu ne mais jàpp nañu loolu tamit nekkul solution bi nga xam ne mooy bi gën bi gën bi nga xam ne moom la ñu discuté woon waxtaan ko ak kilifa yi mooy def foofu benn poste avancé si bërëb yooyu ngeen tudd ba nga xam ni day nekk une occupation permanente police dafay nekk saa su nekk loolu daal yaakaar nañu bu ñu ko defee dinañu dimbale si lépp te bërëb yooyu noonu mel ni gaar ba xale yi fa nekk tamit parfois damay wax ne ay victime leen parce que dañu dem ba nekk sous le coup de l'addiction ay drogue la ñuy def ak yeneen ak yeneen donc ñooñu dañu matu ñu taxawu leen taxaw bi mooy lan ñu jéem a xool nu ñu wutee centre boo xam ni ne ñu fi nekk dimbale ndaw yooyu noonu mais du question dañuy jàpp rek yóbbu leen bu ñu nekkee police ba seen diiru garde à vue bi jeex soit ñu defee leen soit ñu delluwaat la ñu nekkoon loolu du solution solution mooy ñu jéem a xool ay solution yoo xam ne c'est structurante ba nga xam ni tey problème mu sécurité si bërëb yooyu ngeen tudd mun koy dakk te loolu lu koy dakkal mooy ñu occuper terrain bi wut foofu ay postes avancés mais aussi bërëb yooyu noonu ñu jéem ko defar defar yin ngoo xam ni dina méngoog méngoon boo xam ne nit ñi dina si mën a nekk voilà